Amis auditeurs, merci, bienvenue dalal lan leen jàmm comme tous les samedis dans votre émission Rewmi People comme ni ngeen ko amee ci bande annonce bi tey sunu star elle s'appelle Assette Blonda jamono yi mooy toj xale bi ciy gis <laughs> li nga xamante ne mooy réseaux sociaux yi ci télévision yi voilà elle fait du buzz elle est donc euh, en ce moment sur toutes les lèvres dafa xew alors tey moom la ñu am honneur dalal ci bile émission fas yéene waxtaan nag ak moom ci li nga xamante ni moom la soobu di yoonu musique alors salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam soxna si nuyu naa la maa ngi nuyu Sénégal di nuyu àddina di nuyu waa Rewmi FM aussi. na nga def. maa ngi fii maa ngi cool maa ngi nice. Mhm. Mhm. yaa ngi nice ça se alors ma toute première question mooy Assette est-ce que xam nga ci li nga dugg. waaw metti na méttiwul mais yàlla baax na mhm. waaw. Mhm. d'accord alors euh, lan moo la motiver ba nga daal di soobu ci li nga xamante ni mooy yoon bi mu bëri xam torop rang bi serré aussi lan moo tax nga préférer faire de la musique. waaw musique moom dafa nekk loo xam ne dama ko yàgg bëgg dama ko bëgg trop depuis ba ma doon xale bu ndaw laa doon woyantu di foowantu ci musique xam nga. ba yàlla def ma ñëw Sénégal parce que maa ngi woon Libye yàlla def ma ñëw Sénégal bu ma ñëwee Sénégal nekk ak sama frère bu baax ku ñuy naan Fafadi. Mhm. ma doon nekk ak moom waaw men ma doon nekk ak moom xam nga. des fois mu soxla ay chœur voix des fois artistes dañuy soxla des fois ñu leen di defal yenn kër yi ci suuf seen musique yi yeeg yooyu. Mhm. après ci la dem ba ci biir mu ne ma Assette tu as une belle da nga war a way ma ne ko man sax dama ko bëgg looloo indi tey musique bi ñëpp xam ne Assette day def musique. d'accord parce que souvent euh, artistes yi dañ naan dama bëgg woy mais est-ce que bëgg ko ak mën ko c'est la même chose. bon man moom dama ko bëgg mën ko. ah incha allah <laughs> te lépp li nga xam ne maa ngi ko ciy séentu rek incha allah dina ñëw te nekkul nekkul dama ci font daal dama ko jël au sérieux nekk sama passion. danga ko jël au sérieux kon instant yi jusqu'où es-tu prête à aller dans ton art am ci ban fan euh, est-ce que tu te fixes des limites maanaam am na foo xamante ni fa nga yem franchir toutes les barrières est-ce que jaral na la ko pour arriver ci li nga xamante ni moom ngay def non non man instant bi fu sori laay séentu mm-hmm. fu sori lay séentu di teg sama bët fu sama idole bi nekk Beyoncé fa laay teg sama bët teg sama bët bah franchement nag euh, tu peux être notre Beyoncé sénégalaise ah. yaa ngi ci yoon bi. maa ci yoon fu mu egg de laa bëgg a egg. <laughs> d'accord alors parle-nous un peu de tes débuts euh, de tes débuts avec euh, Fafati ton intégration ci groupe. xam nga rek da ngay nekk nit koo xam ne da ngay xam sa bopp xam ne tey jii sa sa mën-mën. peut moo lay jàppale nga bañ a yàkkamti bañ a yàkkamti boobu moo tax 2016 laa defoon benn clip après ma toog ba 2020 waaw ci laa soog a defaat clip parce que temps boobu noonu yëpp maa ngi toog concentré wu di def ndànk ndànk ndànk ba xool ki nga xam ne day ñëw jàppale ma te yàlla tax fekk seentuwul lenn ci man xam nga fekk santage indiwu ko dara indi ko day ñëw pour jàppale ma te yàlla tax te yàlla mu ngi koy soog a indi alors euh, bi nga xamee ni da nga découvrir ay talent d'artiste ci yow maanaam xëy na boo ko gëstoo di nga mën woy après lan moo ci topp danga nga ko jàngi ou bien tu t'es trouvé un prof de musique voilà. non ba mu commencé doon woy jànguma ko fenn comme li ma la doon naan sànq woyontu di woyontu mais après amoon a benn moment boo xam ne maa ngi nekkoon Douta Seck doon def guitare mais après xam nga. eggaliwu ma ko woon ak sama formation boobu foofu moom yàgguma fa woon. Mhm. musique moom jànguma ko fenn te sama famille kenn woyul man kese maa fay woy jànguma ko fenn. alors est-ce que kon mën nañ ni professionnel de la musique nga parce que quoi qu'on puisse dire loo xamante ni yow da nga ko opté par exemple ki opté pour le journalisme daf koy jàngi ki opté pour être tailleur daf koy jàngi il faut se dire aussi que la musique c'est de l'art il faut nga perfectionner est-ce que juste avoir une belle fois peut-être être charmante wala boog am yenn voilà quoi yaa gën a xam est-ce que loolu rek doy na est-ce que tamit gëstu bi amu ci solo. noo loolu rek doyut. Mhm. instant bi war naa delluwaat du ta seek dana liggéeyaat sama voix parce que musique moom toujours dangay jàng rek parce que chaque jour nga gis lu bees chaque jour nga gis lu bees te nit ki tey jii am na foofu. foo xam ne boo fa tolloo dafa war a am nooy woyee nooy woyee mm-hmm. te loolu yëpp foog nga jàng ko yaa ngi dégg mais loolu moom mën naa ko macha allah mais damay dooli mm-hmm. nga xam-xam moom du doy toujours dangay yokk rek mm-hmm. mais dinaa delluwaat pour jàngiwaat musique boo delloo lan ngay gën a jàng su ma delloo de guitare laa gën a bëgg gën a jàng. lu tax artistes yi bëgg guitare. parce que guitare ci ngay gën a mën a am inspiration di gën a mun a parce que boo téye guitare di ci fond lu bëri ci nga koy mën a am. tey booy def musique nga war a génnee refrain yooyu yëpp yu bëri daal ci guitare nga koy mën a mën a amee quoi. Mhm. D'accord. Amis auditeurs, je rappelle que nous sommes dans cette émission, cette semaine avec Asset Blonda. Hein, ah, elle est artiste, elle est aussi jeune talent. Ñu daanaka biñ ko xamee yàggul bon man boog personnellement découverte la ci man tey moom la ñu am privilège waxtaanal ci bile émission. Alors Asset déjà pourquoi Asset Blonda? Tu es blonde? bon pour <laughs> pourquoi cette Blonda dama nekkoon xale macha allah taaru xees becc ba nuroog blonde gars yi ñu ma doon wooye blonde blonde blonde parce que xeesaay bi parce que doomu Kolda laa doomu pël laa pël fiir dog mhm. Balde laa sant léegi blonde blonde blonde boobu noonu moo dem ba indi tey ji sangam Kolda laa dëkk fa laa cosaanu foofee sama cosaan après ma jël Kolda bi def blonde bi ma jël daa bi def ko mu doon Blonda ba pare aussi dama bëgg ay couleur toujours tout le temps sama bopp moom blonde rek laa koy def aussi ay couleur daal. Mhm. looloo indi blonda bi. d'accord tu aimes les couleurs et tout mhm. on te dit pas souvent que t'es artificielle duñ la ko wax. <laughs> quest qu'on te dit. waaw oh, dara. <laughs> quest ay dama jonge d'accord alors ci sa musique bi ngay def jamono ji lan nga ci accomplir loo xamante ni c'est grandiose ah man de ci seen ay affaire yu bari loo xam man daal comme ni ma ko waxee nit ñi daal nañu xaar dinañ gis lu bees tàkk tàkk tàkk ci Asset Blonda loo xam ne mosuñu ko woon sax gis mm-hmm. waaw lool daal laay wax caaxaanuma ci foo taxuma cee jug lenn taxuma cee jug lu dul liggéey rek soobee yàlla dinañ gis ay affaire yu nice yu bees yoo xam ne danga koy indi. ba nga ci duggee ba léegi ñaata album nga produire gum wala juste des sons nga am. non non non defaguma ay album ay single rek laay def. ñaata single. bon defoon naa trois laa defoon am na bu jëm mooy bi génnoon 2016 bi mooy kuy bëggee Asset Blonde Asset Balde boobu laa defoon mais euh, bii nii nga laa xam ne moom laa gën a liggéey mooy bi ma defa ak Clayton. parce que son bi nii nii ma def clip nii man ak ñoo ko def. alors est-ce que mën nga ci acapella tuuti nuyoo ko ñi nga xamante ne ñoo lay teewlu. <laughs> baby yow laa it yow laa it xamal ni yow laa baby yow laa yow laa it yow laa oh, oh, xamal ni yow laa. baby you love ok <laughs> d' accord alors euh, pourquoi euh, nga préfère intitulé ko yow la chanson d' amour la wala. Mhm, chanson d' amour la maanaam. gan lu tax artistes yi ñoom bu ñu fëlee rek mbëggeel la njëkk woy. non xam nga mbëggeel dafa neex rek. Mhm. te dafa neex a woy parce que nit ki moom li ngay dund rek boo ci woyee day neex. Mhm. mu ngi noonu béy bi yow laa bi maanaam nga nekk koo xam ne yéen ñaa kase la. Uh-huh. mu xam ne yow la man ma xam ne moom la. <laughs> rek amul keneen. foofa toj foofu toj. <laughs> d'accord parce que souvent euh, les les familles peules elles sont conservatrices nga nekk doomu Kolda doomu Peul c'est bien cela alors ta famille comment est-ce qu'elle a bi nga jógee ne da ngay def musique qu'est-ce euh, que quelle était la réaction de ta famille. bon sama yaay moom nangu woon sama yaay nangu woon lu bëri su ma ko doon def sa dama doon làkkatu ba ma su ma doon dem defi cours euh, affaire bi ma doon expliqué sàng dem defi cours guitare bi yooyu lu bëri dama doon nëbbatu mais après bu mu demee ba ci biir xam nga nit ñi di ko naan xam nga sa doom ji li muy def caaxaanul daal bàyyi ko affaire yooyu noonu ci la dem ba xam ne bon caaxaanu moom soo ko accepté lépp mm-hmm. macha allah mu ñaanal ma ci ba tax tey ji mu mun a yegg si fii. temps yooyu yëpp yaa ngi Kolda. non non maa ngi fii Pikine sama famille ñu ngi pikin mhm. waaw Kolda ah. suñu cosaan la rek. à quel âge nga njëkk a yor micro. micro est-ce que du 2000 lii ay 2012 yooyu ay 2012 waaw. Mhm. Parcelles Assainies benn lii moo fa amoon signaté contrat bu Prince defoon foofu après ñu invité woon ce jour-là quest que tu as chanté. jour boobu noonu mooy fan nga jamono yooyu dama doon. ji rek da nga doon wéyantu. ma noonu rek. <laughs> léegi jox ma micro ma doon waaw la woon signature kon signature la woon. jour boobu loo ci fàttaliku ça s'est comment. non après dama dama kontaan ba ma yéegee noonu way noonu après. dama tiitoon loo woyoon déjà. defe naa ay affaire yu yi laa doon woy léegi ci laa way njox ma micro ma ci doon ma fontu noonu def acapella wàcc après ñëpp tàccu ma kontaan ma ne ah kon lii neex na def ci laa gën a concentré wu ci affaire yi. Mhm. par la suite ci nga dem rejoindre. Mhm. Fafadi. waaw non Fafadi ba ma koy xam yàgg na. Mhm. Fafadi maa ngi ko xam depuis deux mille. le lien s'est s'est fait comment naka nga def ba xamante ak moom. non Fafadi li ma def ba xamante ak moom dañ présenté moom rek benn pas règlement bu ma xama ñoo bokkoon koñ. moo ma ko présenté woon parce que avant ma ko bëggoon sama sama fans la woon après ci lañ ma ko présenté mais mais nekk ak moom toujours tout le temps mais nekk moom. Mhm. ginnaaw yàlla moom moo tax tey ma dugg ci musique moom. d'accord alors kañ nga décidé euh, jóge ci moom ber sa dara wane sa talent au devant de la scène partout au monde pour nit ñi xam la. non non moom xam nga ah, déggoo sànq ma ne la après moom dafa voyagé woon xam nga ba mu voyagé woon ci laa jël sama yoonu bopp ci sama yoonu bopp boobu ma jëloon ci laa doon gis ay xat-xat yooyu ma la doon naan gars yi duñ la mën a jàppale te yàlla tax ak yooyu noonu. mais man nag moom ñu ngi déggante parce que moom lu muy nekk Sénégal bariwut. Mm-hmm. après léegi Clayton laay laay gën a fréquenté. Euh, Djily mu ngi ma doon wax que ni euh, tout au début ay atum 2016 tu étais beaucoup plus avec les rappeurs mais là gis nañu peut-être tu changes un peu de paradigme yaa ngi laal yeneen sonorité yi pourquoi ce changement. non non amul changement parce que musique laay def man fu ñu ma woo ma wuyu. ci lépp. ban genre musical nga gën a kale. lépp. lépp c'est-à-dire. lépp laay def lépp fu dégg nga fu ñu ma woo ma wuyu rab beeg mbalax beeg fépp zouk lépp fu ñu ma woo ma wuyu. d'accord mais quelle est ta particularité Assette lan ci lan la gën a kale lan mooy sa identité musicale. lan la. lan mooy sa identité musicale. ci lan laay gën a kale. ci lan nga gën a kale. R&B. ok afrobeat. Mhm. c'est c'est c'est quoi ce genre musical quelle est ta de ce genre musical du R&B afrobeat explique-nous. <laughs> voilà afrobeat jamono ji moo moo moo moo nekk au top. dafa xew rek moo tax nga koy def. dafa xew déedéet nekku dafa xew rek moo tax ma koy woy parce que dafa nekk loo xam ne dafa neex te dafa neex a fecc foo foo mun nañ ko teg fu nekk boîte yeeg fépp. léegi xam nga ñun dañuy bëgg di xàppi te jamono ji ñu bëgg nañ déglu musique boo xam ne boo buñ ko tegee nga mën a di fekk yooyu. Mm-hmm. te arène te dafa nekk instrument bu nice voilà. Mm-hmm. c'est ça. simplement alors euh, dis est-ce que c'est pas parce que tu es sexy et belle moo tax nga bëgg a def musique wane woytu <laughs> sànq nee la dama ko yàgg bëgg. <laughs> c'est sûr. non du affaire que dama nice dama rafet dama sexy moo tax. la wax rafet sax yow. ah toujours ma dégg ko toujours ma dégg ko yow yaa ko njëkk wax. <laughs> dama la doon tooñ. waa kay mu ngi noonu mais man dama rafet macha allah doom pël laa pël bu ñaaw amut. Mhm. yaa ngi mhm. nekk loolu tax may def musique comme dama ko bëgg rek billaahi loolu la rek du leneen. d'accord alors euh, tu nous di que tu tu as vécu yoo xamante ni xaw na metti lu jëm ci genre chantage est-ce que mën nga ci ñëwaat. comme li ma expliqué woon sànq da nga bëgg ma ñëwaat ci. ñëw ci ba ci affaire chantage. Mhm. yow lan nga ci dund. lu metti rek. comme quoi. comme gars yi bal bu xam nga Sénégal am na ñoo xam ne mën nañ la dimbali. Mhm. mais tey am na ñoo xam ne balaa ñu lay dimbali dafa am lu ñuy bëgg. Mhm. mais comme ni ma la nee sànq boo ci amee fulla ak fayda nga bañ cee ànd ak ñoom incha allah lu jot yomb moo tax fulla ak fayda googu moo tax ma toog muñ ba tey lii yëpp yàlla dogal tey ma génnee sama clip def nii yëpp te lenn lu ñaaw amu ci. Mhm. waaw Clayton sama frère la sama xarit la. son bi man a moom ñoo ko def jàppale na ma ci te yàlla tax ma pare ci loolu yàlla boole maa ko tudd Cheikh leader ñëw jël clip bi fay ko ñu turne ko lépp nice ñu jàppee ma comme seen rak dara lu ñaaw amu ci. Mhm. kay d'accord et cela bul loolu noonu bouleversé wu la kasewul sa rythme wala sa dynamisme. Mhm. tu l'as vécu nice lépp cool. Mhm. lépp cool lenn lu ñaaw amu ci. noonu maa ngi leen di remercier bu baax a baax. kay mhm. jàppale nañ ma te yàlla tax. ACET dafa am problème de production ba tax mu jànkonteel yenn yi walla waaw instant bi moom on producteur te comme san ni ma am na tamit ay producteurs yoo xam ne xam naa leen mais comme li ma la wax sànq rek mais aussi maa ngi naan kay bu ko xam ne bëgg na ma jàppale te yàlla tax ci producteurs yi. Mhm. bon maa ngi toog pare di xaar ku ma bëgg a jàppale rek après ñu. coordonné xool lu ñu def. qui a été ton producteur. xaw baax na. amul ku la sollicité. ku na accord alors euh, artiste ñi nga xamante ni ñooy produit producteurs yi ñoom duñu produir koo xamante ni xëy na duñ def pour amul dara parle-nous de ton de ta bibliothèque musicale jamono yi ñaata son ñoo nekk au frigo ñaata son nga bind. bari torop maa ngi bind ñu ngi enregistré di teg mhm. bu ñu waree génn rek génn benn bombardé ko mu toj ñu jëliwaat leneen rek instant yow sa bibliothèque am nga plus de cent sons amul cent de instant amul ay diis juste <laughs> d'accord alors de tout ce tu as écrit ban moo la ci gën a marqué son boo xamante ni peut-être tey jii bu génnee dina am boom dina am buzz mais aussi yow au fond de ton cœur tu sais ci mm-hmm. mooy bi nga xam ne bi ma texte bi ma bind pour sama yaay boobu moom xam naa ne moom bu génnee incha allah moom gars yi dinañ ko bëgg te tamit nekk na loo xam ne lu nice la. Mm-hmm. incha boobu daal texte yi ma jot a bind yëpp boobu laa laaj gën a sentir sama bopp. boobu pare na. pare na loo ci wax. sama yaay laa laa ci laa ci laa ci wayal tagg ko ci. Mm-hmm. laa ci wayal tagg ko ci bientôt incha allah dina génn. d'accord alors ñu gis ni jigéen ñi jamono yi euh, soobu nañ ci wàllu musique bi torop penses-tu que ñoom elles ont leur place dans cette euh, dans Landerneau dans cette plateforme. ñan ci jigéen ñi soxna yi. Hmm. Mhm. ñu gis ne ñu ngi imposer bu baax ci musique sénégalaise. xale jigéen ñi ñi nga xam ne dañuy way. est-ce que am nañ ci seen chance. waaw am nañ seen chance ku si nekk ak lu mu bëgg rek. da ñafe rek. Hmm. ñafe nga xam li nga bëgg rek. góor góorlu ci rek liñ ci bëgg moom incha allah. yow quelle sera quelle sera ta particularité lan nga nar a sutee ñeneen ñi. liggéey lépp liggéey la loo liggéeyul moom doo ko fayeeku. Mhm. waaw loo liggéey rek moom ngay fayeeku. yan thème yan yan thème nga nar a gën a développé. <laughs> li xew ci dëkk bi rek. comme quoi. lépp politique beeg lépp sama yaay ak li ñu ñu di dund dëkk bu metti beeg rayaate yeeg lépp lépp la ñuy bind. Mhm. lépp. àndandoo yeeg xaritoo yi dëkk bi nu mu dëkk bi nu mel daal loo gis rek danga koy bind génne ko yow yaa ngi ci yaa ngi ci lépp déjà tes textes tu les partage avec ki sama saa yi may nekk samay benn samay textes sama waaye staff ñu ñooy nekk mhm. ñooy nekk ak sama yenn xaritu artistes yi tout temps ñooy nekk ku ci ne nga wax sa xalaat rek ñu ngi gis rek nga bind bu ñu paree ñu boole lépp xool nuñ ko organiser mhm. d'accord alors quand est-ce que nga fas yéene génne album. bientôt incha allah. bientôt c'est-à-dire yàggatul léegi rek. <laughs> am na gën de <laughs> waaw alors pourquoi souvent les femmes sont victimes de chantage ci milieu bi. pourquoi ñu chantage d'après toi c'est pourquoi. ah xaw c'est dû à quoi. wax naa ko sax peut ku ci nekk ak nu muy dundee rek mooy loolu ku ci nekk ak lu muy dundee rek ak góor goo xam ne peut-être balaa muy jàppale nit balaa muy jàppale nit muy am lu mu bëgg peut-être dafa am ñoo xam ne peut-être dañ dañ koy dañoo yàgg di dund loolu moo tax ñu yaakaar ne ñëpp benn lañ te ñi ñu yemuñu mm-hmm. loolu la rek d'accord ah, yow léegi lu nu lu lu mel noonu ragaloo dundaat ko non loolu yaakaaruma ma dund naa ko sax muñ naa ba yegg si fii te dund ma ko li des ci sama liggéey yëpp duma ko dund moom franchement. Mhm. d' accord est ce que Assette moom nekk na artiste boo xamante ni elle est trop télé bi nga fëlee ba léegi ñaata plateau nga def est ce que tu fais des démarches pour être en contact avec aussi les animateurs. waaw man gars yëpp samay xarit lañ télé yëpp samay gaañ lañ. am na am na yu ma jot a def yeneen i fan yi aw ma woon jot moo tax defuma ko mais incha allah semaine bi yëpp dañ koy def. Mm-hmm. ci mission télé yi. Mm-hmm. am na yu ñu jot a def. parle-nous un peu de la réalisation de ta première vidéo. béy bi yow la clip bi béy bi yow la la tudd. Mm-hmm. tu l'as réalisé sur combien de temps. non benn fan. <laughs> benn fan lañ ko def clip bi benn fan lañ ko def xëy def Radisson ci ngoon gi ñu def Yoff mu jeex benn fan lañ ko tourné. méttiwul. Mhm. d'accord alors bi mu génnee tey yan écho nga ci am sens-tu que voilà sa a marqué le public. waaw bu mu génnee ba léegi naay sant yàlla alhamdulilah. parce mun na ciy wax. dégguma ci leen lu dul nice na nice na trop ñëpp sama xaritu artistes yi ma xam yëpp wax jox naa leen ko ku ne woon na ma téléphone nee na ma li nga def nice na trop gis nañ ko yaa ngi liggéey nga gën a góorgóorlu. Mm-hmm. nice na trop moom macha allah dégguma ci lenn lu dul nice. Mm-hmm. kiñ ci àndal di waa ji fàttali ma tur bi. Clayton Clayton lu tax nga taamu ànd ak kooku moo la gën a jubu ou bien. non déggu sànq ma ne la ñu samay nit yu baax lañ. damay nekk ak ñoom. sa nit la sa nit la d'accord. Mhm. mais booy choisir nit pour defa moom clip y a des critères au préalable pourquoi le choix porté sur Clayton pourquoi. mais Clayton nee naa la man moom xam nga dama ne ñoo def son man taamu ma pour def ak moom son. yaa ko sollicité wala. taamu ma ko parce que li ñuy comme tey ji mën nga toog ak nit ki nii. si mën nga toog ak nit nii ngeen teg instrument di ci woyantu looloo indi ñu enregistré sunu son bi ak te son bi dañ ci doon foo rek. teg instrument di ci foo nii nii après ñu enregistré ko def ko clip looloo indi lool de mais mm-hmm. artistes yëpp samay gars lañ ku ma ci war a woyee rek dinaa woy dinaa woy moom mm-hmm. ku ma ci war a nekkal rek maa on dit aussi que tu es très sexy appréciation commentaire <laughs> mais jigéen da sexy osé bandi saf kase loolu rek la de. jigéen da ngay saf jigéen. saf jigéen ak sexy c'est la même chose ou bien. mais benn la parce que jigéen boo jigéen boo safee jigéen da ngay parce mhm. que boo safee jigéen da ngay sexy. quelle est ta conception de sexy porter des habits courts être. waaw man tey sexy nekkul la ngay sol lu lu lu sexy sexy ci yaram la nekk. Mhm. man tey bu ma solee sax grand bu musóoru tagalu <laughs> damay sexy. ci sama yaram la. voilà mhm. xam tey maa ni lu jot laa sol. mais ku ma gis xam ne kii dafa sexy mais sama lépp a jot. d'accord kay. léegi lu tax jeune génération bi notamment les filles. voilà bu ñu tourné clip dangay sentir que ni yaa am na level bu ñu toll dañu oser quoi elles mettent ce elles portent ce qu'elles veulent musique moo toll foofu bien. ku ci nekk sa bopp nga xam man sama bopp laa xam man daal su may def sama clip lu mu laaj moom laay joxe. Mm-hmm. lu mu laaj rek lu son bi laaj scénario bi laaj loolu loolu laay def man moom sama bopp laa xam ñeneen ñi moom xaw ma xaw ma si parce que du ma fréquenté ñoom xaw ma lu ñu des ak lu ñuy def. ah donc. Euh... C'est ma laaj la quelle est relation avec les autres artistes sénégalais d'une manière générale man artistes yëpp samay xarit lañ. ñëpp tu les fréquentes. waaw damay fréquenté yenn artistes gël yi ñoom OMG euh, gël yu bari damay fréquenté ñoom ñoom ñëpp jàmm laa sekk ak ñoom samay xarit lañ damay déggante ak ñoom lu ma soxla ci ñoom moom macha allah am ko. Mhm. voilà c'est ça ñoom ñëpp samay xarit lañ. tey jii est-ce que on peut s'attendre à ce que nga def euh, clip ak euh, keneen ku mel ni yow ku sexy mel ni yow genre Queen Biz. bare <laughs> naa <laughs> ñu ñëpp ay artistes lañ. musique amul frontière ñu ñëpp lañ. Mm-hmm. ku ma ci santé pour woy ak moom wala képp ku ci santé pour woy ak Asset Blondin rek pare naa pour defante moom ñoom ñëpp ñoom Queen Biz ak képp ku mu munti doon ñëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. Alors, euh, je vous rappelle qu'on reçoit Asset Blondin dans notre plateau. Elle aussi coiffeuse, c'est bien cela. damay def aussi coiffeur damay létt di def lépp sama gàlle à part bi moom maa ngi liggéey ci affaire coiffure du létt pose ongle Mm-hmm. létt yu nice mm-hmm. amul fenn boo paree sax yow boo paree rek mën nga ñëw létt non la waaw is bu tamit xam nga ne yow sax bopp bi la nga koy bàyyi. truc de cheveux <laughs> waaw nga da ñëw def say renversé yu baax sa kanam mën a xëccu leer tuuti sax. waaw baax waaw boo paree nga tegaat ci affaire yi. <laughs> d'accord est-ce que c'est facile d'être euh, coiffeuse et être musicienne en même temps. man moom sama lépp dama ko organiser su ma waree dem studio. wala am émission wala am lu ma war a def gis nga ni may waxee ak yow nii am na client yoo xam ne ñu ngi war a léttu mais damay dem def li ma war a def sama musique bi nga xam ne man caaxaanu ma ci dama koy dem def su ma paree su ma ñibbee sama kër defaatuma dara ma concentré wu ci létti mm-hmm. lépp dama ko organiser. et au studio kañ nga fay dem. waaw studio wala may faral di dem guddi gi ah, parce que guddi gi moo gën a neex a liggéey. Mm-hmm. dem night bi nekk fu bàyyi 5 heures du matin boo ñibbisee nga tëdd guddi gi moo gën a neex liggéey parce que bëccëg bi dangay nekk ci ay affaires yu bari yoo xam ne danga koy dox say soxla bopp nawet bi nga dem dóor li ngay dóor. d'accord yow industrie musicale sénégalaise bi noo ko gisee est-ce que c'est cool il y a des choses à par vas-y industrie musicale bi musique sénégalaise. Ah, nice. ñu bari nee nañ y a beaucoup de médiocrité maanaam li nga xamante ni ñi <laughs> nga xamante ni daal. ñu ngi ci te dese nañoo professionnel bëri nañ ci est-ce que tu sens la même chose est-ce que même appréciation bi nga am. mooy li nga xam ne que dañuy. je parle pas des filles mais des. ñi nga xam ne dañoo nekk ci musique bi que liwuñu wuñu seen affaire dafa des. non <laughs> la musique sénégalaise sur l'apprécie comment am na ay avancement am na luñ ci war a jooyanti. man man man sama bopp laa xam man sama bopp laa xam mais c'est facile ça quand même une artiste. boo xamante ni war na am vision ci ci ci tout ce qui tourne autour d'elle rawatina ci aar bi mu nekk wala. waaw loolu dëgg la wala yow sa bopp rek. nga toppatoo man man sama bopp laa toppatoo <laughs> waaw tey am naa toppatoo ma kenn sama bopp rek. Mhm. mais quand tey jii tey supposons Assette am proposition. ne lii buñ ko defoon xëy na musique bi ak artistes yi dinañ gis seen bopp ci wàllu wi qu'est-ce ministre bi woo la. teg la ne la aset proposé ma telle ou telle chose pour que li ngeen nekk voilà Avancé. quoi am beaucoup de waaw beaucoup plus de succès tey jii quelles maanaam door waar rek ñu boole xol yu ñëpp nekk benn ànd nekk benn parce que artistes yi boole wuñ seen xol artiste boole nañ seen mais da nga damay yokk rek mhm. pour ñu gën a mën a góor góorgóorlu rek parce que fii ñëpp ngi si jàmm ñu gën a gën a nekk si jàmm rek mhm. liggéey kase waaw loolu rek la. si hier était aujourd'hui tu serais artiste. oui. pas de regret. non non. Mm-hmm. sérieusement. <laughs> tu n'as aucun regret. mais am na loo xamante ni peut-être def nañ la ko ci mu metti la wala loo ci dund loo xamante ni ne t'a pas plu. sànq mu mel noonu. au-delà du chantage on sait. autre chose defuñu ma ci lenn loo xam ne metti na ma moom. <laughs> wàllu musique tam metti na production ak tamit prestation artistique yi yow sa xaalis su may jógee sa sa ressources financières tu les tires d'où. samay nit rek. naay kaaje di wayaan. waaw damay wayaan. sambay mbayaan kase dëkk bi dangay mbayaan rek. <laughs> am li nga bëgg wayaan sambay mbayaan damay samba mbayaan rek. black à dangay sàmbay Mariane sincèrement pour euh, te financer pour financer yow li ngay def. non man dama am ay nit yu baax yoo xam ne bu ma amee lu ma lu ma xew la rek dama ku ci ne dama koy woo ne damay def lii ku ci mun jàpp ñu jàppale ma te yàlla tax. Mhm. waaw loolu kese la. d'accord nga nit ku nekk am nga say nit yu baax yoo xam ne boo. amee ñooñu ñan la ci gouvernement bi lañ bokk wala. yii ñooñu samay nit lañ samay nit lañ rek doo mën a wax tur samay nit lañ ay nit yu baax lañ rek. Mhm. très bien alors euh, yow lan nga ñu mën a wax déjà ci ci sa enfance t'étais quel genre d'enfant. Ah, xale bu sopp rek waane sopp waane dëgër bopp waaw nekk xale daal nekkoon naa xale bu sopp waane dëgër bopp. bon oui euh, mais yàgguma ci parce que après formation yi ma doon def rek jàng moom bëgguma ci moom dara lu ci ëpp formation rek. te fi ay cuub nekkoon ci ay centre coiffure genre yooyu lu moom a gënoon a nekk ba ma nekk xale buñ ma nee jàngi du ma jàngi maa ngi fu ñuy cuubee affaire cuub malien yooyu cuub ràbb yooyu ma gën a neexoon mm-hmm. ñu bëri ne nañ musique bi doxul doxul yow ci dire la même chose musique bi dox na kay boo ci liggéeyee waaw yaa maa ngi ciy sant yàlla de boo ci liggéeyee rek loo ci liggéeyee rek moom ngay fayeeku loo ci liggéey moom ngay fayeeku boo ci liggéeyu nag doo mun a fayeeku ñu lii man nag lii ma ci jot a liggéey moom maa ngi ciy fayeeku ci sant yàlla bu baax. Mm-hmm. d'accord Assette euh, est-ce que tey jii defagum nga loo xamante ni euh, genre ay concert wala génn réew mi Sénégal presté à l'étranger. non non génn guma de mais incha allah rek. lu mm-hmm. jot yomb. concert aussi des fois. mooy ay 2016 jam mooy ba ma la doon naan que ba nga ma naan ndax joxoon nañ la micro sànq yooyu ay concert yoo xam ne defoon naa ko ay concert ñoom type yenn ci école yeeg yooyu noonu loolu jot naa ko def mm-hmm. mais nii nii moom sama euh, clip bu mu génnee ba léegi defaguma concert defaguma dara parce que sànq li ma la waxoon dama jàppoon mais instant bi ñu ngi topp promo bi nii mm-hmm. loolu yëpp mu ngi ñëw nii incha allah pourquoi Beyoncé est ton idole ah mais nit ku nekk am nga artiste boo xam ne toujours danga koy suivre lu muy woy neex la. au Sénégal fii dafa am ku la fi doyul ba nga jéggaani ido Sénégal am na ñu ma fi doy fii sénégalais yi sax am na ñoom ñoo xam ne américains yi am nañu seen Ida. Mhm. sénégalais yi nekk fii nii dañuy suivre américains yi américains bu ci nekk ñoom am na ñoo xam ne ñoom ñoo nekk seen ñoo nekk seen Ida. Mhm. man Sénégal fii am naa fii ñoo xam ne samay idole lañ. comme que. ay ñoom Ami Collé Ami Collé lu muy woy dafa neex baatam dafa neex dafa mun yuuxu nice mhm. après Ami Collé aussi damay déglu Beyoncé mhm. waaw d'accord alors euh, euh, quels sont tes rapports avec les hommes tu es une fille boo xamante ni voilà quoi elle elle les hommes tu vis ça comment ah nice nice am fulla ak fayda yem ci kenn kase cool kon instant on peut dire que tu es fiancée non tu n'es pas un cœur à fiancé ma de nekk ak kenn ku baax rek nga toog kuul ak moom. Mm-hmm. kase loolu mm-hmm. amul leneen. gëw ma la. gëmoo ma. ah man de loolu laay. instant ñaata nga am. man instant bi mm-hmm. benn laa am. benn nu tudd. amul tur. <laughs> café la tudd. café gi may naan la tudd. d'accord est-ce que euh, yaa ngi waaj dem grand théâtre waaw man de loolu laay ñaan yàlla de incha allah loolu de laay ñaan nit ku nekk artiste bu nekk ñaan nga yàlla tey jii sori ba tey ngay dëgg grand théâtre fu raw grand théâtre Bercy sax laa lay tegal. Mhm. ok incha allah. yaa ngi ci projet yooyu. waaw maa ngi ci projet yooyu. Mhm. d'accord mais yow par exemple sa manager ak sa staff euh, nun lay apprécier. ils te disent que tu es que tu peux t'en sortir ou bien yan critique souvent lañ lay def. bon fii nit ku nekk toujours mën nga def loo xam ne tey jii jaadul dañ leen naan lii jaadul defee ko nii. bu yow yan critique lañ lay def. ah yan critique maanaam que xam nga rek bu ñu toogee di def suñu yenn réunion yi rek loolu moom suñu vie privée la. mais am na quand même des des critiques yoo xamante ni souvent peut dañ la koy def naan la assez pour être mun na mënoon nga defee nii wala neneen comme ça mu parfaire des choses souvent yan critique lañ lay def. non duñ ma critique ci lenn lu dul comme sànq li ma la expliqué noonu amul lenn ñu lépp dañuy liggéey nice parce que dama leen déggal luñ ma wax loolu laay def luñ ma waxul du ma ko def. Mm-hmm. moo tax lépp nice lépp cool. jàmm yàlla d'accord alors ce prochain <laughs> album sa album nu muy nu muy nu mu nar a tudd. non eggagu li li wëguñ yooyu li wëguñ ko. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord miir gi rek. <laughs> ok d'accord instant yi bu fekkente ne tu as une grande réalisation à faire lan lay nekk lan moo gën a nekk sa mbëbët yow. waaw maam sama yaay rek sama yaay rek <clears throat> sama yaay rek. sa yaay rek c'est-à-dire. maanaam sama mbëbët lu sama yaay. moi je parle pas de ta parle de yow ton métier ci li nga nekk nii. quel est ton plus grand rêve mooy li sànq expliqué naa la ko di ñaan yàlla c'est que tu n'es pas précise dans tes propos <laughs> comme li ma la expliqué di ñaan yàlla rek tey jii tey fu sama idole bi toll fa laa teg sama bët te ñëpp xam nañ moom moom mhm. fu mu egg à quand le prochain clip alors puisque tu tu refuses de nous parler de l'album prochain clip bi nu muy tudd et puis c'est pour quand euh, bientôt rek lépp daal dina ñëw ak surprise bett leen mhm. incha allah ngeen xaar leen rek au-delà de ça Assette ban genre nit la et elle a beaucoup de fréquentation qu'est-ce qu'elle nit ku cool la yaatu tout le temps samay copines rek laay nekkal mhm. à part samay copines ñi may liggéeyal kase dangaa bëri copine non non bëri ma copine de mhm. bëri ma copine ñi ma yàgg nekk rek laa nekkal ba léegi nii noo gisee jamono ji artistes yu jigéen ñi ak weerante bi ci am ñii di enregistré ñii ñii di vidéo ñii muy daw ci internet bi quest que ça te fait à quoi ça te fait penser toi. ah xam nga ñun ay jigéen la ça moom boo wóoloo sa bopp xam sa bopp doo tiit yaa ngi dégg ak xam li ngay wax doo ragal doo tiit bon temps temps yi euh, euh, nu ñu ko ci waxatee sax. Euh, affaire yi bëri na trop ojo yeeg affaire yi ñuy gis bëri na trop mais li ma leen di conseiller maanaam daal ñu ñu gën a moytu daal parce que am na yoo xam ne rafetul ci jigéen ñu gën a moytu parce que jigéen da ngay am jëkka war a am ay doom xam nga ñu moytu ñu moytu bu baax yooyu ñuy def. le mariage ça fait partie de tes projets à long, à court terme moo tax may wax. <laughs> mariage. Mm-hmm. est-ce que duma liggéey ba ci kanam. donc projet à long terme. Mm-hmm. liggéey ba ci kanam. prochainement lan la ñuy xaar ci ASEC quelle sera la prochaine nouvelle venant de toi lu bees tàkk lu bees surprise beneen clip beneen clip lu muy tudd amagul tur <laughs> amagul tur d'accord merci en tout cas c'était un plaisir Asset merci beaucoup kontaan naa ci yow kontaan ci Rewmi FM Rewmi FM wala Rewmi FM TV. waaw Rewmi FM TV di kontaan ci yéen di rafetlu ci invitation bi di remercier aussi sama waay staff ak ñëpp. Mhm. képp ku may bëgg daal maa ngi lay remercier bu baax ak sama sama yaay. c'est le dernier mot. Ah, <laughs> merci en tout cas. C'était Asset Blonda, notre invité dans l'émission Rémi People de ce samedi. À mes auditeurs, cette émission nag tey dama ko réalisé dama ko euh, donc euh, def son ki nga xamante ne mooy sama binôme Djily il est dans des préoccupations il est dans quelque chose donc merci à notre invité euh, qui n'est pas trop bavarde et un peu voilà maa ngi remercier itam ñi nga xamante ne ñoom la àndal Cisco et son manager aussi tour bi Tafa on aura peut-être l'occasion de revenir mieux avec elle merci beaucoup en tout cas donc à mes auditeurs ci teewlu gi ñu dem ba beneen yoon toog fi ak beneen daanaan kenn du yéen passez un très bon week